walla yàlla xam na ko waaye loolu moom jikkoom la li nga wax ak moom boo ci génnee rekk mu bàyyi sengoor nee na ma ñaar la ma Sëriñ Babacar defal yu nga xam ni li mu def ci man ëpp na bu jëkk bi mooy bi ma ko jëkkee gis dama perdre bay bëgg sukk mu téye sama loxo yëkkati ma ni ma ki nga bokkal liggéey doo ko sukkal waaw nee na ma jàpp lool mu ne ma bi ci des na fexe ba seeti sëriñ Fàllilu mu ni ma ñaar yi duma ko fàtte mukk sa ngoro ma ko nettal ba tax na yàlla nu joxoon kilifa yu mag kilifa léegi nag dañu tollu ci jamono bu nga xam ni bu ñu wattuwul bu ñu wattuwul nombaru sëriñ si dana dem ba ëpp nombaru taalibe yi politiciens yi dana dem ba ëpp nombru nombre yi bu ko defee àdduna tukki benn yoon ndax bés bu ne nga gis fukki sëriñ bu bees yu kaalaw dañ ciy dema dema dem ba taalibe dootu ñu xam fu ñu yem yàlla xam na ko yàlla xam na ko xam naa jar na bàyyi xel nag jar na bàyyi xel ndax ah aljamaatu sumun qatil Maodo daan na ko wax الجماعة سم القاتل ومن يكون نباي تخيل رك نخينا رك دفي بن موفمان pour ne demain y appeler général de Gaulle waaye mouvement ba du woon parti politique yàlla xam na ko booba maam man maa wax ne rekk wóoluwuma nègre di ma yilif wóoluwuma ko ci yu jamono te yàlla xam na ni wóoluwuma ko woon te la ma ca doon wóoloo di ko yépp mujj naa ko gis ndax dem naa kaso ñaari yoon yàlla xam na ko yàlla dogal ba ñu gisee ci seen biir wax ni nañu fexe ba dissoudre mouvement Cheikh Tidiane ñu dissoudre ko ci seen réunion ba ñu demoon ca Dahomey ba ñu dellusee yàlla dogal Abdou Aziz mii laaj ko ko bu sëñ Babacar si ma nga àndandoo ak Major Cissé bu Ndar ak sama doomu ndey bële Chérif Mamina Chérif Mamina di sama wóllëre ñu ni ma déglu nga déclaration politicien yi ma ni déedéet ñu ni nee ñu di dissoudre nañu sa mouvement ma ni lu ngeen ci xalaat ñu ni ñu def ko parti politique pour won leen ni leen jëkk a nekk ay leen ay ci Je suis entièrement d'accord. Chérif Maamina dafa jël am lu ko metti ba moo ëppoon yitte ca parti boobu ñu ni nag fu ñuy jëlee secrétaire général pour parti bi Major Cissé ni chargé leen ma ko parce am naa xarit bu ñuy wax Omar Diop mën na ko amee lii kat moo indi parti ba ñu defee campagne yàlla dogal nu am lu ñu amul ma nekk cees téléphone bi sone sama jigéen ba fa nekk di doom ci sow ma jaañ daal di may fett su ma daw mu ni ma déglul parce que booba moo amee téléphone yi ma dégg Lamine Gueye ci làmmiñam mu wax Senghor ni ko barab yépp dinañ ci perdre kon nag nu sàcc wallahi alazim seen góor nu ko daal ñemewuma ndax ay croyant lañu te dafay tax cheikh yàpp ñu ba xaw mu ni ko yow dangay font yaa ngi def politique ma xamuloo politique dal di koy jox benn sëriñ sëriñ ba ni ko nan sàcc wallahi alazim sàcc rek moo nu mën a jàllale fi mu ne waaw Senghor wax na dëgg dafay tax ma ma ma yàpp leen ba faw waaye ba ñu ca demee dem ca dema dem ba nga xam ne sàcc bi moom def nañ ko nun nu raxas ci sunu loxo ba mu set wecc bàyyi leen ak yépp yombul nag yombul yombul ba tax na réew moom ñépp ko bokk ku ci ne loo yëg ni mooy sa farata rekk mën nga ca taxaw yàq rekk moo bon waaw dafa fekk politique itam warul nekk baasu sos walla baaso yàq ne lu ne dégg naa ko ci PSS wante daal may na ma lu rëy ndax doomu daara bu ragalul gouvernement ragalul état yàlla jox na ko lu rëy dafa la dafa laa ko jëli ba benn bés duudu caam ni ma complexe bi Senghor am ci yow dinaa ko dindi ndax ba léegi mënul tudd PSS ma bëgg rekk nga dimbale ma comme sa wëllëre la nga ànd ak man tey ñu dem teeru ju ko aéroport loolu dana dindi complexe bi ci bi mu ci am ndax yërëm naa ko dañ ko sant lu mu bëggul te mooy càcc ga ma ne ko kon ñu dem aéroport am naa ca sedd de bu ngeen ko ko laajee muy ma fàlli jóg ba ñu demee aéroport ba Senghor wàcc gis ma fa dafa mel ni xamatul lu muy wax ndeke ba tey kersa gaa nga ca moom lu jàmm ni ma lii dootu fi jóg kon nag bu njëboo bàyyi ko benn yoon ma faa lii a ngi taxaw de ndax man taxeem laa jëloon yàlla xam na ko dem teeru ci Senghor ndeke Senghor complexe baa nga ca moom ba rek càcc ga daal nanguwu ko woon conscience am nanguwu ko mukk maa la ko wax pour wax la rek ni lu ne dee ko jëlee ci source ba waaye boo ko deful rek yàq ñiy bind ñépp dañuy fen rek maa la ko wax foofu daal yàlla dogal na mu nekk fi nag tabarkalla tabarkalla di dox di dox di dox ba fii ñu toll tabarkalla wor yi ci am yépp jóge tugal walla fu mu mënti jóge on s'en fout ndongo daara moom ndongo daara rekk la xamul leneen lu dul loolu sama benn cousin yaayam ak sama yaay ñoo bokki bàyyi muy Ousseynou Dieng bii gaañu bër ki dem keroog bi ñu ko joxee sëñ Babacar wooma ma ñëw mu ne ma yow rekk laa ci wóolu maa ko jàngal xaale cheikh bu mu xëy di ilimaan ci juma sëñ Babacar Si maa ko fayee itam jox ko Moustapha mii ak Mansour pour mu jàngal leen yàlla xam na ko ni ma xëre woon ci jàngal ko yépp ci làmmiñu sëñ Babacar la jóge yàlla xam na ko ndax ni mu la daan joxe nit fokk nga xër ca nit ka ba ci saadeer ba moo ma wax ni ma saadeer mii satuma ba jaxu la kon nag na nga góorgóorlu ci àlluwam ndax yàlla daf ko def mu nekk silmaxa kon nag fokk jàng rek lay mën a def nga nanga ko jàngal tabarkalla ñi ma doon jàngal ñëpp Sadeer laa ci gënoon a naw parce loo ko jàngal mu tari ko te silmaxa la woon loolu la yàlla dogal tabarkalla réew mi nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu mësu fi jóg benn yoon wante sama diggante digganteeg Senghor wax dëgg yàlla ki ko ràbb te ràbb ko dëgg-dëgg mooy Alaaji Habib yàlla xam na ko moo ma ni rekk àndal ak moom ma ni ko ah mu ni ma deet bul ni ah mu ni ma ndax réew mi dana soppeeku ci kanam te Senghor comme amul ànd ak moom mooy gën a yomb wallahi alazim moo ma ko wax ci làmmiñam bi ma ci réfléchir laa d'accord def article yónnee ko ci journal yónnee ko ci journal yàlla xam na ko fekk mu tàgguma ni dafay dem marok mi ngi ànd ak sunu baay bu ñuy wax Alaaji Yaasin maa ngi toog ak sama mbokkum daara mu ñuy wax Jibril Njóob gis naa ko bu yàggul te ma nga ca bar waaye gis naa ko bu yàggul wallahi lazim mi ngi sol xaftaan bu rafet moom Jibril Njuug waaw xaftaan bu nga xam ni wëñ yi dafa mel ni lumière a nekk ci biir ba mu ne kàngaree rek laa xam ni ci jàmm la nekk yàlla xam na ko parce que ñoom ñu ngi fiy ñëw léegi relation yi àgg na fa relation xayba ak shahada àgg na ci bés bu ne ñoom dañ fiy ñëw dañ fiy ñëw yàlla xam na ko moo tax tubaab yi ni buñ ci sàkkul pexe àdduna tukki ndax ñun itam relation xayba ak shahada war nañ ci profiter at yi yëpp ci la savant yi nekk di seet nañuy def ndax ak aqtaab yëpp jariñu nañu ci relation yooyu relation xayba ak shahada kon ñu ni ñoom nañuy def fokk ñu jariñu ci ñoom itam dinañu fexe ba nit ku dee buñ ko suulee du yàqu moom lañuy ñuy jëkke tubaab yee ko wax de te ñu ko wax duñu savant yi caaxaan li ñuy jëkke mooy nit ku dee du yàqu ci bàmmeel parce que ndeke nit ki du nit ki ma nga ca bar boo ko defee bu ñu fexee bu relation boobu am rek moom lañu ñu tuddee ak tay moom la ñu tuddee ak tay Sëriñ Babacar tudde ko ak tayul akbar mooy ñi nga xam ne va-et-vient diggante barsax ak fii lañu ñu nekk te barsax moo dàq fii may voyager wax Haj Malick Sow ni ko duma yàgg nekkal ci kër gi duma yàgg ma ñibbisi ci guddi bërset ma dem seeti ko moom Haj Malick Sow mu ni ma man de biig laa mës gis sa maam Serigne Touba ci gént ma ni ko xam mu ni ma waaw ñëw na fii ni ma waxal Cheikh ni ko garab gu mag gii na ko gorlu na ko gorlu ndax reen yi am na ci yu fatigué te garab ga bu daanu woon ci sunu kaw àdduna tukki ma ni ko demal seeti ñu man gor ñu ñëw goral ñu ko léegi ci taxawaay mu dem di wuti ñuy gor garab ga daanu gannaaw te yàqu fa dara yàlla xam na ko pour wax la ni ah ci ñaari daara yëpp la bokk loolu la yàlla dogal loolu fa tabarakallahu moo tax teraanga yenu góor gi yónnee yépp jot nañ ci ñu ngi ko jaarale ci loxo sëriñ Moustapha yi moo nu ko dimbalee ci gàmmu gi tabarkalla tabarkalla loolu moo sëriñ Babacar defal nu ko benn la yàlla xam na ko kon nag nu may leen rek ñu rocceeku ndànk yeewee ko comme dañu bëgg daw waa ji tabarkalla tabarkalla te ñu waxal ñu góor gi rek ni ko jot nañu yëpp waaw ko jot nañu yëpp tabarkalla loolu mooy li ci nekk mu mel na kon nag am na lu jamono mën a soppi waaye am na loo xam ne jamono mënu ko soppi nañu fexe ba li mu politiciens yi bañ a ëpp li mu électeurs yi nañu fexe itam ba li mu sëriñ si bañ a ëpp li mu taalibe yi loolu moom bés bu amee rekk àdduna tukki waaw lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la tabarkalla tabarkalla xam naa xuduuni raxiisan Maodo dina ko di répété rekk sopp na ko lool comme bayt xuduuni raxiisan boo gisee ku ko mët jox ko sa bopp bu ko bañ daan la defar waaw boo ko mët jox ko sa bopp ko bañ daan la defar ma nga ca baytu ba baytu ba mat na téere xuduuni raxisan littiraari ilaykum waaw ma nga ñu bind ca seen sena ba ba tey xuduuni raxisan littiraari ilaykumu wa yarxusu inda littiraari mabdiu ma nga ca seen seen haba ba tey ma nga ca Maodo sopp na ko lool comme bëyit parce que dama rafet dafa rafet waaw boo taxawee ca buntu senaa ba ña ca biir di chefi tariqa yi nga ni leen jaay naa leen sama bopp ay waay waay jënd leen ma waay ngir yàlla ma wàññi njëg rek ngeen jënd ma ndax yéen rek laa bëgg àndal loolu kenn du ko def ba noppi yàlla di la toroxal du nekk kenn du ko def ba noppi yàlla di la toroxal xuduuni raxisan littiraari ilaykum wa yarxusu inda littiraari mabiu ay waay waay jënd leen ma waay ma yomb ngeen jënd ma yéen rek laa bëgg ngeen jënd ma bëgguma keneen jënd ma tabarkalla tabarkalla lu am solo la lu ama am solo la bu ko defee nag ah mag ñi ñoom mag ñi ñoom tabarkalla seen warugar yépp def nañu ko bu ko defee doom yee ci des doom yi itam ko ci bëgg a baax baax dana la yomb ci kattanu yàlla ndax ñaanu mag ñey tax dama toog yàlla dogal ëpp na xet ndax moo ëpp doole téere mag mu baax mu la jàngal àdduna ci làmmiñam moo ëpp doole téere maa la ko wax man xam naa ci dara moo ëpp doole téere ndax dafa am nu ma daan jëfandikoo moo di dema xëy rekk ñaan pour ñu bàyyi sama bàjjen astu si mu dëkk seeg man ci ndakaaru te mooy jur mbër kebe nangu ko kontaan ci famille bi yépp kontaan ci mu ñëw dëkk seeg fii ma ñaan tantaami mbay pour mu ñëw dëkk seeg fii ci ndakaaru mu ñëw dëkk seeg man fii ci ndakaaru te alfa ko jur alpha mbay fii ci Tiwaawan alpha ku alpha problème bu ma saan jaxasoo dana ko réglé moo ko jur ma dem jëli sama tantaawa Cheikh parce que moom la la jàpp kan gënoon bëgg ci doomam ñu ñëw dëkk ak man ci benn kër tabarkalla tabarkalla xam-xam ba ci juddoo xajul ci téere wallahi laa maa ko Cheikh xajul ci téere keroog bi sama bàjjan a sugaañoo Alaaji Abdoo ngi toog Sëriñ Tijaan a ngi toog dañ ni kenn du ci wax lu dul Cheikh waaw loolu di ko sabab farata la di ko sabab farata la ndax la cay génne ci jikko téere mënu ko am téere mënu ko am mukk mukk mukk lu am solo la kooku maa yi wëral sama bopp yàlla xam na ko yàlla xam na ko ma ñëw nag fekk leen ñoom ñett ñuy waxtaan ak Cerno Ba ma agsi toog soxna si joxoñ ma cerno ba ma xam nga la bokk ak moom ma ni ko sama najaay la mu ni waaw kay loolu laa bëggoon dégg cerno ni ko gis nga soxna si xale yéenu gën ndax sama waa kër ak waa kër Cheikh ñu ngi nekk benn xaritoo te waxtaan wu am solo sax ma suma ko def ak Cheikh moo tax xale yi li nuy ñaan mooy na leen mag mu baax di orienté wallahi alazim mu ni kon dinañ leen jariñoo ci biir jariñoo leen ci biti waaw te loolu moo am solo loolu moo am solo loolu ëpp na sax ñu di ko sàggane ndax itam xale yi am na ñu générosité bu ñu dajee mag mu am générosité bu ñu ko boolee rekk réew mi jariñoo ko loolu rekk mooy li nga xam ni moo ci nekk waaye keroog lii la Thierno Ba wax yàlla xam na ko wax ko soxna Astou soxna Astou a ngi toog waaw mu di ma tooñ ni ma euh, sa waa kër yi bu ñu ma gisee dañuy mel ni ku gis gaynde te dañu ni woon ku ku jàng tubaab du respecté mag mu ni ma ndeke du dëgg sa waa kër yi bu ñu ma gisee dañuy mel ni ku gis gaynde ma ni ko ci yow la nag ma ni ko danga respecte sa bopp ni ko ku respecté boppam rekk doom yépp di doomam tabarkalla loolu la yàlla dogal pour wax la rekk ni kenn amul lu toll ni dajeek mag mu baax kooku dafay dimbale xaleel yàlla xam na ko te itam sëriñ bu mat sëriñ ëpp na xepp ëpp na xepp ndax yonent yépp koy jàppale ci lu wér ñoom ñépp koy jàppale mel ni kon lu jar a bàyyi xel tubaab yi ba ñu yónnee ñu ñu déy leen ni leen Lat Joor a nga ca Ñooro te boobu moom la ñuy wut ñu wax leen fa mu nekk ca Ñooro ñu préparé bu baax nag ba nga xam ni bi yoon du leen rëcc ñu wuti ñooro waaye fekk na am na ñu leen fa jiitu ba wax ko maam Abdou Ba xoolanteeg Lat Joor wax ko ni ko yonent bi mësul bëgg ko noonam di fekk ci biir këram ndax dina ko gaañ dana yàq këram kon nag nan dogale ji tubaab yi ci xuru nañ nañ dogale ji tubaab yi ci xuru xuru pate bajaan nga jël aile droite bi ma jël aile gauche bi duñu rëcc mukk te la mu waxoon am te booba ñu doon jël si Lat Joor ñépp ay noble lañu yàlla xam na ko waaye ca xurwa la ñu des ñoom ñëpp kenn génnul ba tey pour wax la ni mag ñu baax rek la ñu fi amoon mag ñu baax rekk la ñu fi amoon am bés nag Alioune Badara Mbengue téléphoné ma ni ma sa mbokk maa nga ca intérieur waaye wéet na de muy Amadou Cissé Dia ma daldi jël téléphone pour dem seeti ko tubaaba mu ma wuyu officier tubaab moo ma wuyu ni ma loo koy doy ndax booba ndakaaru kenn du génn doo dajeek picc ci mbedd yi xanaa char char yi ci koñ waaye ma ñëw ba ci rue quinze fekk fa étudiants yi ñu daje fa ak syndicaliste yi ñaari xale yu baax jàllale ma xamuñu ma sax waaye ñu ni rekk nañu may paa bi mu jàll xam nañ ne dafay doxe soxla xamuñu ma xamuma leen waaye keroog ñoo ma dimbale ma jàll dem Ndakaaru dem intérieur fekk fa Amadou Cissé Dia ma ni ko mën daal dafa am lu ma la bëgg laaj ndax li ngeen tuddee épopée de Lat Joor moom la walla du moom mu ni ma waay sëriñ yow itam tey dafa xat ma ne ko dama ko fàtte woon te booba ndakaaru kenn du génn dañuy teeri ñaar ñu taxaw syndicaliste yi ànd ak étudiants yi di xeex ak gouvernement bi kenn du kenn ma ni ko dama ko fàtte woon mu ni ma dafa xat ma ni ko li tax nag ma laaj la ko biig dama ci werante ba sama dënn tànk te ñi ma doon weranteel ay tubaab lañ sama wëllëre lañu samay xarit lañ moo tax ma di la ko laaj te xam naa ni am na loo ci xam mu ni ma ah moom de wolof dafa nii ku nekk la nga am nga yóbbu marché ma ni ko waaw kay boobu bëggoon a dégg ma ni ko dana juri musiba nag ma ni ko dana juri musiba nag ku nekk la nga war a yóbbu marché nga fa war a yóbbu waaye ku nekk la nga am nga yóbbu marché àdduna bu tukki la àdduna bu tukki la ma ni ko te ca kanam la ñuy xam yàqu-yàqu bi mooy daañu dem ba jël prix bu dul dara yendu koo tëggal pour jox ko mu kàllaf te du jar ñaar dërëm ma ni ko walla ñu yóbbu nit jële ko fi ba yóbbu ko Europe di ko tappal drapeau ki médaille te fekk représenté wul dara ma ne ko loolu la loolu di juri ëllëg kon nag nañu fexe ba lu ne ñu